ñuy wéyal enchaîner euh, wéyal matinal bi ak suñu yeneen naataango yu ñëw daal ñu rejoindre ku ci mel ni Ndeye Pétaw Petaw maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. maa ngi lay fay Aïcha noo def. ça va alhamdulilah. suba gi sant yàlla. lépp mhm. allah yàlla xeeb doole. amiin waaye. ay ci mbégte doon rek ak bànneex comme ni koy defee tous les mardis seen deuxième partie Allô Sénégal ñu indi leen seen rubrique bi nga xam ne xew-xew wala fait divers wala lépp loo xam ne ay kaala ci réew mi ñu daal koy waxtaanee di nuyu sama naataango yu bokkal plateau bi di nuyu Cissé sama journaliste préféré maa ngi lay nuyu baax a baax tey coupati bi tabarkàlla macha allah dem ma fu mu <laughs> bu baax a baax bu muy tam Aïcha ma delluwaat la kàddu nga daal di doxal. dalal ak jàmm Ndeye Pétaw rakk yi mu ci plateau bi rakk yi maa lay nuyu. maa ngi lay fay Aïcha suba si ça ñu bàyyi la nuyu mbokk yi. waaye di di nuyu di nuyu Kajoor di nuyu Pétaw ak téléspectateurs yi di leen wax ci kanam rek ñu ñëw ci alalu. ayca alalu tey ci la la ñuy la la ñuy focus la la ñuy waxtaanee. alors tey dañuy waxtaanee mendicité maanaam yalwaankat yi ci lënd jot nañ def benn reportage nag bu taw xam euh, lan moo tax ñuy nekk ci mbedd mi mm-hmm. waaye itam dem nañ seeti benn sociologue bi wuyoo ci tuuru Mamadou Wan euh, Mawo xam naa bu élément bi jàppandee rek ñu dem seetaani ko ñëwaat ah xanaa lii la ñuy jafe jafe-jafe yelwaan bii la ñu bëgg a dindi dañuy am ku ñu ko dindi wu ñu amee feebar jafe-jafe rek waaw xam ne amoo jëkkër amaanoo jëkkër yor sa njaboot ak yëpp yor sa njaboot yooyu sa luyaas du te lii lañ koy fayee bañ a def lu bañ a bañ a def lu bon ci yalwaan bi lañ koy dajale fay man fanaanu ma si mbedd mi nee naa la man damaa yor sama kër damay ñibbi sama kër xaar yàlla sama njaboot yóbbu leen ñi togg ñu lekk. Cette étude montre qu'il y a trente mille enfants mendiants quotidiennement à Dakar.

dafa bari eh, ay xale yu yelwaan bari na mag yu yelwaan soo ko xoolee ci gëstu yu ñu def yi ah, man ci sama bopp def naa benn gëstu ba nga xam ne pour euh, euh, cellule national de lutte contre la traite des personnes balay loolu tam aussi banque mondiale UNICEF ak BIT def nañu liggéey ba nga xam ne Euh, pour xayma xale yi yelwaan lu mu gën a wone parce que ne dañ yaakaar ni xale étranger yi ñëpp mais xaleel sénégalais yi nga xam ne ñu ci bari ay Kolda yu ñu jógee au Fouta ñëw ak aussi ci zone su xoolee bu baax euh, ay euh, zone de Thiès bi Tivaouane département ñu ci bari fii lañ jëm mais xale étranger yi mun nañu wax ni que quand même soo xoolee bu baax am na xale yu bari itam aussi yu jógee ci yenn dëkk yi di ñëw di yelwaan si yooyu mooy waa bi bissau soo xoolee bu baax ñoo ci ëpp ëpp am na tam euh, na la tudd waa Mali lu tax ñuy ñëw Dakar xam nga Dakar la capital Afrique la woon Afrique euh, de l'Ouest bon donc capital bi dafa am euh, ci par rapport ak yeneen dëkk ñoom fu ñuy jógee euh, Dakar dafa nekk aussi euh, fi nga xam ne dafa am nu ñu tudd capital économique soo gisee Dakar et Sénégal yi dañ mën saraxe loolu tax na foo dem ci àdduna bi capital boo dem yaakaar naa ne capitalu Sénégal Sénégal moo ëpp lu ñuy joxe ci mbedd mi donc yaa lu ñuy wax du <laughs> ñuy wax offre de mendicité. gouvernement bi war na xool ñëpp ñi nga xam ne combattre les trafiquants bon ñi nga xam ne aussi duñu trafiquant mais conditions yu métti lañ nekk xool ak seen dëkk yi nan la ñuy def ba nga xam ne parce que Sénégal am nay loi yuy traite yuy interdire mendicité en lieu public. soo xoolee article deux cent quarante cinq code procédure dafa interdire mendicité en lieu public sauf maintenant tu vois yenn jours yi par exemple vendredi pour les musulmans euh, qui est dans le tudd dimanche pour les chrétiens et devant les lieux de culte mais fii Dakar Sénégal faut tourner c'est la mendicité les grandes villes les petites villes les villes moyennes c'est-à-dire mendicité dafa dem ba nga xam ne léegi profession la profession parce que les sénégalais yaakaar nañ ne war na saraxe loolu lu baax la nga saraxe mais da nga ko war a organiser solution principale mooy que dañ war a traiter euh, mendicité ci espace public bi jéem ko organiser euh, autour des lieux de de de, culte euh. bon nga xam ne dañuy respecter zakat bi les enfants on doit les retirer de la rue pour les protéger amul kenn ki nga xam ne ku jur sa doom euh, nga xam ne da ngay bëgg xale bi nekk fii vivre de conditions mais terrible inacceptable yow loo dul nangu sa doom pourquoi nga koy nangul doomu jàmbur Aïcha mu ngi noonu remercier euh, Mamadou Wane nekkoon foofu euh, ca UNICEF doon défendre droit de de l'enfant moom nag euh, sociologue la en même temps moo ñuy wax ni bu ñu seetloo lu mendiants yi ëpp na ci lu toll ci euh, mille mendiants fii ci Sénégal mais dañuy gis ni que cinq pour cent yi rek ñoom ñoo jóge ci sous région bi donc mu wane ni que dañoo jàpp ni que ma euh, ñiy jóge ci sous région bi ñoo ëpp Sénégal alors que euh, ëpp nañ ko wala boog ñoo ëpp Dakar dañuy foog ne que ñiy yalwaan rek dëkkuñu Sénégal. alors que la plupart ce sont des sénégalais ci soit ci euh, ay Fuuta la ñuy jógee comme il l'a si bien bien ci yeneen euh, région yi ñu ñëw ci ci dëkk bi di di yalwaan mais Aïcha boo seetloo euh, su fekkee ni ñun suñu loi dafa tëral lenn loo xamante ne dafay jéem organiser loolu mais gisuñu ci benn finalité amul je vois pas fan problème bi nekk je sais xam ci ñun la askan wi wala boog ci ci ci ci ci ñiy gouverner la parce su fekkee dafa am article bi wax ni que euh, autorisé nañu à que man mendicité di am ci réew mais dañ ko structuré maanaam dañ ne vendredi pour les musulmans ci lieu de culture la wala bokk chrétiens yi euh, les les dimanches pour euh, si seen lieu de culture mais où est le problème ba ñoom ñi nga xamante ne ñoo tëral loi boobu noonu appliqué wuñ ko ñuy gis li nekk fii parce que on peut pas dire ñoom gisuñu ko. donc nag mu nekk loo xamante ni c'est tellement difficile bu ñëwaatee ci condition yi nga xamante ne moom mooy tax ñoom sénégalais yi ñuy nekk ci mbedd bi pauvreté bokk na ci walla situation yoo xamante ne dafa metti d'après la femme moom dafa ne en fait euh, bien vrai que dafa amul boroom kër bu koy jàppale ci charge su kër yi. Mhm. waaye tamit dafa am njaboot. Mhm. ba pare nag li gën a pire nekk ci yalwaan boobu moom ci lay fayee location ak lu mu dundalee njabootam. liggéey la nekk. donc genre c'est comme si que léegi loolu dafa nekk business yalwaan parce que moom mu mu ngi wax ni que bu amee fobeere sax mu jël maanaam bu amee liggéey donc léegi je me la question vu que Kajoor yéen journalistes yi yéen a ngi gëstu et tout est-ce que jotul nguur gi tur euh, tëral benn kuréel boo xamante ni day jéem a aider femmes yi nekk ci mbedd mi ak ndaw ñi nga xamante ne am nañu âge liggéey pour ñu ñu ñu mën leen dimbali ci liggéeyi kër yi wala ci yenn bureau yi parce que aussi am na kër yoo xamante ne da nga fay dem ay étranger nga fay fekk ñuy liggéey léegi laataa nag ñuy tabe ci ay euh, ñeneen ñoo xamante ne ay yeneen xeet la mm-hmm. est-ce que duñu njëkkee si suñu bopp pour mën ñu mën a éviter exactement li nga xamante ne mu di yalwaan bi non mais am na ñu ci bëgg a liggéey. y a y plusieurs structures yoo xam déjà il faut juste que ñu tënku. ci li nga xam ne moom la ñu signé Sénégal dem xaatim ko au niveau des Nations Unies cest a dire ak ak yelleef boo xam ne euh, xale bi dañ ko cinquante 54 articles yi nga xam ne moom moo concerné xale bi mhm. boo xoolee quatrième position bi euh, da dañ koy wax ne da dafa am droit ñu aar ko mhm. contre toute forme de violence mhm. ak toute forme de d'abus et d'exploitation. Mhm. loolu rek ça tout dire te ci quatrième ponk bi la la la féete Sénégal on n'a rien à foutre des enfants dañuy waxante dëgg rek. Mhm. c'est-à-dire que les enfants sont laissés à eux-mêmes loolu mooy dëgg parce que boo demee direction de la famille. Mhm. am na euh, enfin ministère de la famille am na direction de la petite enfance. ñoom ils sont chargés de veiller à ce que les enfants du Sénégal soient euh, les, les droits des enfants soient respectés. te ñoom ñi ngi taal seen oto di romb di di romb xale yi di di di di lii donc il y a quelque chose qu'ils doivent faire et qu'ils n'ont pas fait on a des des associations yoo xam ne ak ak yelleefu doomu aadama yi la ñuy lañ la ñuy si la ñuy yëngu est-ce que la bataille a été farouchement menée pour que xale yi génn ci mbedd mi mm-hmm. moi je je je donne ma langue au chat c'est-à-dire que ah bëri na de nu tëddin euh, kii yi ngay wax ni solution yi ngay yi ngay joxe ni yooyu dernière position sax la war a ñëw c'est-à-dire que y a les moyens de maintenir les enfants dans les maisons wala ci daara yi wala dara état am lu mu war a def lu ko warloo ak daara yi mhm. su ko defee mhm. ñi nekk ci daara yi aussi ñu bañ a obligé di dem di yalwaan mais man mii di man mii aussi ma jël sama doom yóbbu ko pour mu dem jàngi aussi am na lu ma war. man sëriñ bi tam am man gis nga sëriñ bi man mii di dalal sa doom boo amee ñàkk fayda wala ñàkk jom ba indi sa doom dénk ma ko. te doo doo doo doo weer du dee ba nga ñëw xool ci nu mu nekkee man ma am fulla yi laaj la looy dundalee sa doom boo ko mënul ma delloo la sa doom mm-hmm. en fait mais je veux juste rappeler que ñi nekk ci mbedd bi ñoom pas en fait ci daara yi da ngay gis famille bu pauvre tey comme kaw femme bi moom ay doomam newuñ ci mbedd bi mais moom moo fa ne ci ministère yi voilà et je me dis que est-ce que moom it bu sonnee du doom yi ñuy ñëw remplacer ko ci place am parce que ci ils vivent de cela en fait donc aujourd'hui le problème c'est ça non rek xam nga yalwaan bi muy wax ak yalwaan bi am léegi du benn parce que femme bi lu mu pauvre. dafa bëri façon mu yalwaan sax. femme bi yow si si lu mu pauvre pauvre. wér na dara jotu ko. Mm-hmm. wér na dara jotu donc am na liggéey boo xamante ne sa ñàkk moo la koy may. Mm. fii ñi ñu dañuy wër di xëy di wër fóot ba jant so mm-hmm. di xëy di wër nettoyé ba jant so ñi ngay xëyee am pastéefu toog si mbedd bi di xaar ku la ya ku la sarax boo amoon pastéefu dugg ñaari kër ñetti kër doo xëy te gisoo ko la ne kaay liggéeyal ma mm. bu la liggéey boo liggéeyee ñaari fóot ñetti fóot fóot léegi bi gën a ndaw junni la mm-hmm. am nga ñetti junni nga dem defar sax table daaj di teg di jaay gis nga nit boo yooyee say doom da ngeen yar si jom des fois nga gis ay mag yoo xamante ne jamono ji na ma yàlla baax dañu nekk ay mag yoo xamante ne amuñu jom parce que yaruñu leen si jom <laughs> mais xale boo ko yaree Aïcha ci tàllal loxo dangay xool mbedd yi boo génnee rek xale yi dañuy tàllal loxo am na si benn xeet bi fi ñëwoon temps dañuy jàpp séeri dañuy jàpp séeri di jàpp séeri bi di la di la langaamu tant que joxoo leen duñu la bàyyi mm. gis nga Sénégal ñu bëgg yoon man jant bi ma keroog ba ma rombee ay yalwaankat ñuy teggi nat 500000. Mm. ba siy jàppante. <laughs> man si laa ne woon sax damay bàyyi liggéey ba dem foofu ndax xam naa moo gën a dugg. <laughs> non non je bi noonu. Mm-hmm. jour boobu ki waroon teggi. am ku ma ne man si laa jënd kër Kër Massar yàlla xam na ko walaay laa jënd je blague pas. et gis nga fii nii grande mosquée bi nii. Mm-hmm. benn jour ay 10 heures ba may RTS ñëw bi may bi ñuy dugg si noonu. mais ne après de moom journée bi neexagul. ah xam nga léegi ñaari junni rek laa am te boobu 10 heures mooy doog a jot. ñaari junni <laughs> ñaari junni te ñun ñi nga xamante ne mën nañoo toog eh, atu la ne la dafa am ñoom business lañ ko def. cest à bi yalawaan bi léegi dafa am xaalis. dafa am xaalis parce nekk dëkk bu nga xamante ni quoi qu'on puisse dire nit yi dañu ah. am na ñoo xam dañu am yéene. yërmande waaw am na ñoom dañu am yéene. wala dañoo gëm sëriñ non non je parle ah, pas de saraxe bi. je parle de business bi ci nekk ak ni mu amee xaalis. des fois nit mooy gaare oto fekk la nga toog mu yëkkati 10 000 jox la ko. dëgg la ci te ci dala koy jox pour sarax la. dëgg la dala koy jox parce que yërëm la fekk na la mais parfois parfois xale yi ngay exposé lay yërëm. yaram yaramam day daw gis xale yi. Mm. nga nga kii loolu tam benn benn. waaw loolu tamit abus la parce que ñu ngi utiliser xale yi ci loolu. rakk yi gis nga boo rombee nii di dem si VDN. Mm-hmm. am na ay place yoo xamante ne am na ay yalwaankat yoo xamante dañ koo def mbaar mm-hmm. def seen i sër teg si bu heure bi boo ko noonu dem tournée ji da ngay gis ñu jël seen doom yi dugal ci panier di sànq. Mm. fa lañ dëkk. non man loolu daf may def kaa fa lañ dëkk. mais maam côté Mariste bi si fu nekk la yalwaankat yi dëkk. te da ngay gis koo xamante ne day yalwaan kuy am journée 10 heures si suba. dix mille francs mënoo ut néeg boo dem dëkk ji. nga wetu musée des forces armées. am na femme boo génnee mais léegi quelle est la solution lan mooy solution. mi ngi noonu am na koo xam ne am na koo xam ne dafa euh, yalwaan ba nii ñu xamee ko ñu dajale fond bu bëri jox ko. Mhm. pour mu départ. Mhm. un mois la ci def mu ñëwaat lalaat. bul xam nga c'est vrai. xam nga euh, solution bi. <laughs> solution bi mhm. mooy. ku nekk li nga war a def nga def ko ah, c'est-à-dire parce que c'est assez transversal du doon solution boo xam ne ci benn bureau lay jógee parce que bu fekkee état bi euh, moom am na lu ko warlu mooy ñi nga xam ne dañuy yàlwaan te jugewuñu ci daara yi mm-hmm. ñu xool fan la ñu jugee bu dee jugewuñu Sénégal ñu taxan leen ñu delloo leen seen réew bu ñu demee foofu ñoom bu leen nekkee ñu dem yàlla mais si niveau niveau suñu niveau frontière yi parce que aussi parce que su fekkee ñoom dañu fay euh, euh, voyager di dugg Sénégal avec seen carte d'identité sans passeport te xale bi amul benn papier bu ñu koy laaj aussi c'est un problème au niveau des frontières xam lu ma lu ma mooy bu dee bu ñu dëjee jëlee yóbbu mhm. avec des communiqués fësal lépp ne bëggatuñu gis kenn kuy yàlwaan ci mbedd ñu jël ñu yóbbu leen fañ jógee ba pare teg sanction ne fi ku ñu rombati ngay yàlwaan mhm. dañ lay jël tëj la doo gis kenn ci mbedd mi bu ñu ñëwee ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi nga xam ne ay sénégalais lañ mhm. mais ci ay daara la ñu nekk ñu accompagner daara yi ba nga xam ne ñi ñu fay yóbbu et puis parents yi aussi ñu ñu contribuer à mhm. l'éducation euh, religieuse de leurs enfants. doguma de am na ñoo xam ne duñu ay taalibe. waaw yow mu am juróom benni doom la yónnee ko Pape Malick mu ñëw fii. muy liggéey di versé bu la versé 750 parce que suñu taalibe yi nekk fee suñu ko ñu ne ñu versement dafa yokk 750 la ñuy journée <laughs> nekkatul 500. yaa ngi dégg léegi 7 250 yi sa papa ko moom léegi juróomi doom Aïcha nga koy versé di ko versé bu weddee ñu yónnee seen papa dund dëkk ba. te ñu ngi fii toog di liggéey <laughs> ce qui est malheureux ce qui est ci sama boutique. ba ay 23h30 0h. Mm-hmm. mais taalibe yi dañuy heure ñun ñu ay taalibe de. 23h nga wax 23h kon yow dugg almadi du ñu ngi parce que ñooñu duñu ay taalibe ñooñu mooy ñi liggéey si. te seen parents yi sorewuñu leen ay côté. dama ne la xale yooyu noonu mooy ñi nga xamante ne ñu leen inscrire fii bu ñu versé sëriñ bi sëriñ bi bu weedee da yónnee seen bàyyi xaalis wala dégg leen affaire bi link la boo xamante ne bi doo comprendre. parent bi la ñuy versé xaalis bi. si sa day am juróomi doom. waaw yónnee ma ko man mii. Mhm. man su ma xëyee yóbbu xale si xale yi bu ñu amee 500 500 francs chaque jour dama ciy génne 200 te ko ne papaam moo ko moom bu yebdee moom laa koy yónnee. mais ndey loolu mënuma ko gëm waaye. <laughs> man laay tegal. papa ji day fayeekul xale yooyu ngay gis ñu nekk ci mbedd ba 4 du matin 5 heures jàngewuñu benn daara tey leen benn saar na leen boo tawee saar ma jox la téeméer essayé ko rek duñ la taril parce que dañ leen indi fii pour ñuy liggéeyal seen waajur sëriñ bi da ciy am papa ja ci am quota mooy trafic de d'êtres humains bi rek parce que loolu te loolu aussi y a une structure qui qui qui qui bu étatique boo xam ne moom moo war a xeex loolu aussi c'est-à-dire euh, waxante dëgg mais am nañu deful seen liggéey ah, eh, su fekkee dañoo war a rapatrier yi nga xamante ne dañoo dañuy yalwaan si dakaar wala Sénégal bokk mhm. léegi sénégalais yi yalwaan ñoom te duñu ay xale na lañ leen di def. man nañu tas yalwaan yalwaan bi la ñuy tas ne leen nag bu ñu leen fekkee ci mbedd mi tëj leen doo ci doo gis kenn ci mbedd te dañoo ñu ragalee kaso xoolal ku si amoon kër kër Massar nga dem defi du commerce mais yalwaan moom day dakk si nii wala si naa di yàqul ñu génne leen ñu dem ñibbi di yalwaan ba jënd terrain moom nekkatul yalwaan <laughs> merci beaucoup ñu jaajëfal la sujet <laughs> bi am na solo dans la dans la mesure où sujet d'actualité la ndax mm. sànq rek on en parlait dans la dans la revue avec Kajor mm. merci beaucoup on enchaîne mm. ku wax lii wax la ca des bu ñu jógee ci yelawaan bi ñu dem ci xew-xew léegi-léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi